bokk ci ñoom di def ay tojaange di wax musiba defuñu ko ñeneen ñi bokkul ci ñoom ab oustaz Assane Seck waaraate kat wax dara ñu ne ko ñu si hmm. kaso bi tëj ko dama ne la hmm. actuellement nii ak amnistie bi hmm. lu ci waay waxoon wala lu ci waay defoon. ci diir kenn mën la cee topp dara la parce que waaw. pénal moo tax je parle pénalement responsable. d'accord waaw ndax eh, actuellement ni moom quoi qu'on puisse dire tant que loi d'amnistie bi tëbul. tout ce qui est délit politique moom wala tout ce qui est en rapport avec les événements qui se sont succédés de 2021 à 2024 moom. doo doo leen ci mën topp ci dara. Euh, donc euh, voilà mais une chose est sûre ah. SAPCO moom waxuma la audit rek waaye plage yooyu yaa ngi wax suuf si mais plage yi nga xam xam nga man nag ñoom ñoo bokkoon nekk immeuble fële ne Ouest Nord Foire après yëngu leen juste. Hmm. foofu leen seen seen nekkoon temps bi fa kii di nekk DG Pape Malick Ndour. Hmm. après si la Souleymane Ndiaye mii ñëw ah moom Pape Malick ñu yóbbu ko fële ne donc mais. liggéey bi yow mun yow lu concret maanaam loo mën a yëkkati teg sa loxo ne lii sab koo def na ko munoo koo gis donc loolu moom jarul sax Salma mhm. di wax bay nekk fii nii ñu naan la moom la ak du moom mhm. xam nga lii naan actuellement nii ñoom heure bi daaw ñoom la woon waaye heure bi ren ñun la. te bul sonal sa bopp gis nga reddition des comptes yi xam nga léegi rek nee na à partir de lundi lay commencé. am na ko commencé tiit mu ba man bi ma ko gëjee dégg mu wax sax xam ban 1900 la mais en moins de 24 heures def na ñaari publication sur Facebook. te naan ay maa ngi valer entre di naviguer entre la nord ak le sud. waaye bëgg bëgg a génn dëkk bi taxu a génn dëkk bi di Mansour Faye bëgg a génn dëkk bi taxut a génn dëkk bi ma ay maa ngi bërëb sàng maa ngi bërëb sàng hmm. bërëb yooyu nga mën a yem waaw parce que dem na fi bon temps yi passé demoon na fi euh, ambassade Allemagne doon uti visa nga rek mbir yi saa yi fu mu toll nii moom toog xaar rek day hmm. mel ni comme ñu pikiiru taqar naa mais toog xaar rek. d'accord ku ku ku jàpp ni daal tu n'as rien à te reprocher moom. Hmm. jarul nekk fii di wax ji wax ji di bëri jarul di nekk fii nii di naan man laag du man di naan bon actuellement nii moom. nan xaar rek milliards yi moom ku bëgg a sàng sa bopp sutura rek bañ a weer sa bopp damal nga delloo ko ndax fii ni ku nekk xam nga loo def. Mhm, ça euh, ñu sûr ñu xaarandi lundi en attendant ñu ñëw ci euh, beneen ponk bi seulement ci euh, mise au point muy déclaration de politique générale bu premier ministre Ousmane Sonko bi nga xam ni diggante le 11 ak le 13. Euh, nit ñi xamuñu à quelle date se fier réellement. kenn xamul à quelle date se fier réellement mais ma xaw a daane tuuti rek parce que en réalité am na ñoo xamante ne du ñuy naan te en fait ay ngaaka lañ buñ la déggee ngay wax ma ne comme je le répète xaw ma ko personnellement mais journaliste laa damay def samay gëstu damay def sama ay saytu. Mhm. donc man day baax par exemple yow sooy wax damay wax maman. bu tay bi comparé ko ak maman bu démb bi mm. est que c'est la même personne est-ce que propos mi mën naa ko jël en compte yooyu yëpp dafay bokk ci li nga xamante ni dañ ciy bàyyi xel te sab ko boobu ngeen ni wax man maa ngi ci mm-hmm. te dinaa ci dikkaat après parce que loolu dafa ñeel alalu askan bi ne ñeel xaalisu askan bi di ci interpeller le nouveau DG mhm. euh, Serigne euh, Serigne Mouhamadou Serigne Boub je pense mhm. ah waaw noonu la tudd donc euh, ñu ngi koy interpeller bu baax a baax mu def attention bu baax a baax bàyyi xel bu baax mhm. yenn votour yi nga xamante ne xëy na ñu ngi foofu parce que mënoo bëgg une chose et son contraire mënoo bañ projet Pastef ba pare bëgg moomu réussir donc ñu ko ciy interpeller di ko bàyyi loolu projet d'aménagement de la lañ ko créé woon. Mhm. Mhm. mooy côté Saly Somone et bëri na suuf yu bëri yoo xam ne am na fa yu fa am. c'est mais man boo dégloo Sonko keroog barki dem bi muy wax dafa ne ñoo ngi def liggéey bu la mhm. ba nga xam ne dañu am lu leer bu ñu ko tegee ci table bi. kenn du am naatable c'est kenn du am naatable. mais pour man euh, par principe. ku ci sàcc alalu réew mi même mbuudu gooto xay mbuudu gooto na ko génnee parce que yenn pour man damaa jàpp ni yëfu dëmm la. moment bi nga xam ne dañuy toog lalu hôpitaux yi am jafe-jafe soo ñëwee Pikine nga ñëw mu wan la maternité boo xam ni ndaw si su wasinee. Hmm. duñ ko fa mën a téye en observation. Hmm. parce que amuñu fi ñu leen dugal. c'est donc alalu réew mi nañ ko sàmm mais même ci droit. Hmm. ci droit am na nooy defee sa procédure boo moytul mun nga salfaañe. waa ji ci ay procédure su amee ay avocat yoo xam ne am nañ procédure ëllëg nga may ko bunt bu mu rëcc moo tax li ngay def def ko nga jël toutes les garanties nécessaires mm-hmm. l'État am na ay service de contrôle mm-hmm. je rappelle que dossiers yi ñu fiy wax nii yëpp Sonko ak Diomaye mm-hmm. ku leen tudd tooñ leen parce que Macky Sall moom moo fi génnee yabal cour des comptes six mois avant les élections ba nit ñi dañ ne la waa Macky lu ko dal sax mu yabal cour des comptes six avant les élections rapport IGE yi ñu wax yépp yu wees la kon ñii bu ñu ñëwee ñu teg rapport yooyu bu kenn ne. c'est ça ñoom ñoo def enquête yooyu. mais par contre par contre mhm. am na loo xamante ni ñi nekk ci état bi ñoom lañu dénk ñoom ñoo ko war a dox jox nañ leen tous les moyens. Mhm. jox nañ leen tous les moyens pour que ñoom ñu traqué képp ko xam ne jël nga alalu réew. man ci ci ci ci. merci pour les précisions bi et dinañ ci ñëw dinaa la wax sama xalaat. ci li nga xam ne mooy waajul wàllum sàcc geeg wàllum tong-tong bi. d'accord. incha allah léegi am na ku ma am na ku nekk ci commentaire yi saaga ko. jéggal jéggal naa ko. non xaaral rek ah, yow xanaa tuloo. Eh non la tudd. Ah, jéggal naa ko. waaw man góor bu jàkkaarloog man saaga ma. góor góor du jàkkaarloog man di ma saaga. kenn du ma xool ci bët di ma saaga. parce que parce que du ma ragal. ñi ma xam dëgg xeex dama koy ndékkee matin midi soir. Mhm. man bu ma nekkee ragal. bi ñenn ñi di dem di làqatu seen taatu jabar non bi ñenn ñi dem di làqatu seen taatu jabar man damaa toog di défier tout un régime quand les sénégalais ñenn ñi nekk ay poltron ñeen ñi dem di wut ay signature au palais ñenn ñi di dem ñu leen di jox man damaa garder li ma nekk te musuma def man bu wax sax nga xam ni man maanaam man su ma tiitee sax damay dee man xaw ma ko barke alxuraan. d'accord léegi nag mun nit mun nga toog ci commentaire pour pour saaga ma mais boo jàkkaarloog man doomu saaga. d'accord ah, Sénégal dafa bëri ay fake quoi. non loolu ça ne marche ak man. je sais pas yàlla non ça ne marche pas avec man je suis dans un débat contradictoire je suis dans un débat contradictoire je donne mes opinions et mes opinions je <laughs> je ne suis pas en tribunal qui que ce soit on a mis en place un dispositif avec un état normal et sérieux mm. ils n'ont qu'à faire leur travail sérieusement maintenant boo waxee sa xalaat benn dunk toog fële di am lu may wax ah, boo ma boo ma xamoon danga may laajte man bis bu ma tiitee damaa dee maanaam jour bu ma tiitee damaa dee <laughs> garaawul yow bàyyi bàyyi leen ak bi rek fi mu ne nii c'est le Sénégal autrement. alors ci Sénégal autrement. saaga moom takkul fenn. non non yéen no waxuma loolu non c'est-à-dire nit wax xalaatam nga nga ñëw. toog man ku ma saaga boo jàkkaarloo man saaga ma doo ko defaat. d'accord Cheikh Omar duñ ko def. man laa wax parce que man su ma bëggee saaga nit. du ma ko bind dama lay xool ci bët nga. xool mais duñ jàkkaarloog yow parce que nekk sa ah, duñ mës a jàkkaarloog ñaari nit la ñu fay dugal leen ci benn benn bureau jox leen ay machine existé wuñu d'accord d'accord sa saaga sa baay mu ngoog merci beaucoup euh, alors je disais le Sénégal autrement ci Sénégal autrement boobu euh, maintenant euh, ñu ngi bëgg xëy na defar defaraat wala jëkk jékk jékkal li nga ci assemblée nationale donc euh, ci loolu maman gis nañ ni que am na ñaari date yu ute yoo xamante ni eh, wax nañ ko ñeel déclaration de politique générale bu assemblée nationale parce que nag niki bi conférence des présidents Euh, daal di nay euh, wax ni euh, que déclaration de politique générale bi dinañ ko amal le loolu moo nekkoon information bi nga xamante ni becci wañ becci woon nañ ko ni ki biig mais ni ki aussi on a vu que président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye mhm. comme j'aime l'appeler daal di nay adressé ci vendredi bi benn lettre jagleel ko euh, président de l'Assemblée nationale euh, daal di koy wax que euh, le septembre incha allah dinañu defal mooy date bi nga xamante ni moom la mën a jàpp ngir amal ci déclaration de politique générale donc mu nekk ñaari date yu uute. mais tey bu ñu xoolee ce qui se passe on a on peut comprendre que conférence wala nu ñu leen di tuddee sax oui la conférence des présidents duñu ils essayent en fait de se conformer peut-être à la décision prise